compte tenu performance yi ñu defoon en 2015 et en 2016 performance yoy nga xamné mo taxone ñaari at yoy le gouvernement a versé une ko woon benn compensation mu décidé en 2017 né day wàññi tarifu électricité lolu nak bu mu amee nous ñëw tay jii ni ba nga programme bu ambitieux jox nañ sénégalais yi courant boo xam ne toll na fa nga xam ne ak qualité bi bu toll foo xam ne kenn mënatu ko wàññi damay wax rek ne si ñetti at yi ni ñu weesu Sénélec dépensé na presque plus de 160 milliards yoo xam ne daf ko investir pour gën a mun a yóbbu courant bi fu mu war a nekk pour mu gën a mun a jox client yi nga xam ne am nañ courant qualité bu baax te bu ñu xoolee rek lu ñu def si wàllu production li nga xamné motax moo tax courant bi doy presque 1233 milliards injecté nañ ko dans le secteur pour mun disposer de suffisamment de capacité lool motax légui ni tay coupure amatul lool motax ni tay tey ñëpp am courant ba Senelec mun am réserve yu doy yo xamné mu ngi entretenir ces machines mu ngi def lool kon bok qualité bobu ak disponibilité courant bobu non suñ ko bëggé maintenir mun ko continuer ak njëg bii nii ñu ko bëgg a def à moins que état bi continue pour di compenser damay wax rek ne tarif yi nag du yokk revenu Sénégal ndaxte at bu jot commission de régulation mooy nattal Sénélec ñaata la war a am ci revenu te natt boobu nag daf koy basé ci contrat de performance bu mu am ak état bi basé ko aussi ci objectif yi nga xam ne moom lañ ko fixé buñ ko nattalee loolu nag ba pare si la Sénélec di xayma ne lii su ma ko waree respecté comme nu ngeen ma ko laajee lii laay soxla commission de régulation validé loolu buñ ko validé léegi nag bañ ne lii nga war a am si revenu su boobaa nag la ñuy xool ndax njëg bi dina ko mat wala njëg bi du ko mat su ko njëg bi matee du am problème mais su ko njëg bi matul nag su boobaa commission de régulation des laaj état ndax da ngay nangu ñu yokk tarif yi wala gab bi si des yow yaa koy compenser loolu lañ defoon at yi yëpp état bi presque subventionné na 318 milliards yoo xamante ne ni moom la jëlee si nga fa am pour jox ko pour Sénélec mën a am revenu boobu noonu nga xam ne moom lañ ko laaj pour def qualité de service ak continuité de service et loolu bu mu ñëwee nag tey jii nii état moo am ay raison am moo ne bu ñu xoolee trimestre bu mujj bi 12 milliards le gab bi nekk état ne léegi kon 12 milliards yooyu mu méngoog téeméer boo jël war nañ ci yokk ñaar fukk ak juróom-benn état bi ne déet lii nag duma ko teg population bi ndaxte xëj na kon mu diis mais dama koy teg damay jël 6 pour cent yi kese moo wax leen ñu contribuer yeneen 20 pour cent yu des man ma jël ko te si 6 pour cent yooyu président daf nañu dañu fexe ba nga xam ne ñu nga xam ne ñoo gën a néew doole bu leen réajustement tarifaire bi laal te loolu buñ ko xaymaa toll na si juróom benni junne juróom benni téeméeri junne ak ñaar fukk famille yoo xam ne hausse bi du leen laal ñu xoolaat mu am ñetti téeméeri junne yu nga xamante ne nii hausse bi téeméer boo jël yeggul ñett luñ leen ci yokkal donc loolu buñ ko xoolee bu ñu jëlee client yu nga xamante ne nii ñooy client domestique yi yëpp téeméer boo jël ci ñoom presque juróom-ñeent fukk yi affaire bi laalu leen kon boog muy mesure sociale li nga xamante ne ni président daf ñu waxoon ne ñu xool ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole bu leen affaire bi laal essayé nañ ko respecté maintenant mu dese ñu yeneen clients yu nga xam ne ñooy industriel ñooñu juróom benn lañ leen yokkal te damay wax rek ne 2017 clients yooyu wàññiloon nañ leen 4 pour cent donc bu ñu xoolee ci diggante bi bu président ñëweek léegi 2 pour cent lañ leen yokkal te damay wax ne ñooñu tay ji ni bu ngeen leen laajte won en 2012 buñ fay toll ku leen waxon ne ñu yokal leen 10 pour te ngeen am courant bu day rapidement ñu signé ndamo wuñu ko mais nag dafa nek ay vérité ak ay fait yo xamné il faut ñu xamal leen ko pour ngeen xol fuñu joggé ak fuñu ñu mais surtout ak fuñu jëm fan lañu wara jëm président daf nañu 2025 dama bëgg Sénégalais yépp am courant. ce qui va nécessiter beaucoup d'investissement et également da wara war prix électricité y a le nañu ñu nous, am gaz du ma wax nañ ne année bii lay jëm parce que loolu jubluwul ci sama compétence mais dama ne bés bu gaz bi ñëwee Sénégal ba nous ñu mun ko utiliser ci suñuy centrale luñ doon courant bi téeméer bu nekk dinañ ci wàññi ñeent fukk te loolu même formule de contrôle de revenu bi nga xam ne tey moo génnee réajustement bi dina ko génneewaat ba ñu répercuter ko ci consommateur et donc di wax ne tey jii nii lu tax ñu ñëw toog war a def lii mooy benn fu ñu war a jëm moo moo moo gën bu baax fu ñu jóge war nañ aussi def équité territoriale xool ji nga xam ne amuñu woon accès ci courant te bobu ba légui ñu ngi doon renoncer ces seen redevance électrification rurale diko subventionné ñi nga xamné ño am courant dafa jot nak légui par solidarité ñoñu tamit ne yag nañ am courant yag nañ ci bénéficier légui qualité bi baxna motax ñu nangu nak 0,7 francs yoy yu nek dinañ ko nangu verser pour que ñeneen ñi nga xamné jotaguñ ci courant ñu mun ci accéder donc lolu yaakaar naa ne équité ak justice sociale la bo xamné ni ak principe de solidarité bo xam ñepp ñoo si wara taxaw donc pour wax né réajustement tarifaire lañ nek té dañu tollu fu nga xamante ni ñun sénégalais yi dafa am ben model bu ñuy wara a bâtir modèle bi mooy Senegal nañ situation de crise ñu ñew di ñafé di défal suñu kenn wuñu kenn wuñu Sénégal rek ko ko réglé ba ñu si fii am fu ñuy wara jëm moy war nañ jëm ci ben marché bu nga xamné ñun ñoo wara am prix électricité yu gën a bas Sénégal léegi nag est-ce que dañuy seetaan système bi daanu balaa ñu fay yegg wala dañuy laaj ku nekk si fu nga toll nga def effort pour ñu préserver modèle bi préserver système bi ba nga xam ne ëllëg buñ si naree bénéficier wu ñëpp dinañ si war a bénéficier wu si nu mu waree loolu yaakaar naa ne mooy justification bi loolu mooy lu ñu leen bëggoon a wax maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne je suis à votre disposition pou toutes